bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yowmi ddin assalaamu aleykum wa wa barakaatu bokki jullit yi noo ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ziyaara ci bis bu tedd bii ak bu tedd bii di bésub ajjuma di ñaar fukki fan ak juróom benn ci ndayi ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar di fàttali sunu bopp di leen fàttali ne jàmm moo gën lu moom loo mën a am ci àdduna te amoo jàmm boo ko mënee sàkkal pexe danga ko sàkkal pexe wuti jàmm nit ñi am jàmm tey ak ëllëg moo tax sunu borom yabal ngën ji mbindeef muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu andi li yàlla santaane leeral ko nàmputal ca saxaaba ya leeral li mu tere ku jëf ndigalam da am jàmm tey am jàmm ëllëg kon nag sunu yàlla boolee ci xeetu sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam lépp luy tax sunu jàng jàmm ñoŋ tey te su ëllëgee ñu am jàmm war nañu ko suuxat war nañu ca góorgóorlu xam nañu ne fan yi jàll yëngu-yëngu yi bari na waaye jàmm jooju nga xam ne moo gën ci nun tey ak ëllëg te sunu borom delloosi ko ginnaaw ñaani kilifa yi ak seeni taxawaay jàmm jooju yàlla na sax dàkk lislaam jàmm rek moo ko tax a jóg moo tax sooy nuyu sa mbokkum jullit dang nga koy ñaanal jàmm wax ko asalaamu aleykum wa wa barakaatu julli limuy muy màgg màgg màgg ci biir julli gi làmboo na ñaan jàmm ñaanal yonent bi ñaanal sa bopp ak mbooloo mi nga nekkal ñaanal mboolem nit ñu baax ñi assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin booy sëlmal sax lay jeexal julli gi mooy dangay ñaan jàmm ñaanal ko ñi nga dendal assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi jàmm moo gën fii ci àdduna bàmmeel ko ca tab bi jàmm rekk nga fay bëgg a nekke bis penc bu taxawee ba ñu dekki jàmm rekk moonu fa jik kon nit jàmm moo ko jik ci àdduna moo ko jik ci bàmmeel moo ko jik ëllëg wa salaamun alayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubaasu xayya bis penc bu nu demee bay tàbbi àjjana yal na nu fa tàbbi nun ñëpp malaaka yi nga xam ne ñoo ñuy teeru dañu ñaanal jàmm wasiqa alladina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara xata ida jaauha wa futihat abwaabuha wa qaala lahum xasanatuha salaamun aleykum tibtum fadxuluha xaalidin àjjana jàmm rekk lañ fay gis moom lañ fay dégg laa yasmacuuna fiha laxwan wala taasiman illa qiilan salaaman salaama ña fa nekk ñëpp jàmm lañ fay nekke moom la ñuy waxtaane moom la ñuy dund taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam moo tax sunu borom ñaanal jàmm ñi mu yónni te ñu gën ci jaamam yi salaamun ala nuuhin fi alaalamin salaamun ala ibrahim salaamun ala musa wa haarun di ko wax di ko wax bane ne wa salaamun ala almursalin kon jàmm moo gën lu dul moom moo tax lépp luy xañe jàmm lislaam da ko tere te loola bokk na ci li koy xañe mooy tooñ soo tooñee day jur noonoo day jur ak mbañeel moo tax sunu borom du tooñ waaye day tere ku tooñ yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu yàlla woote jàmm ne nit ki fum mu toll na koy sàkku xare sax lu muy lu mu métti métti bu ñu demee ba xam ne jàmm moo fa sës nañu wut jàmm wa in janaxu li salmi fajnax laha tooñ li muy metti metti bu ñu la tooñee soo mën la ñàkk fayyu na nga yem ca lañu la tooñ te soo mënee jéggali moo gën wa jazaau sayiatin sayiatum misluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu allah wax na moom alayhi salaatu wasalaam nee na joxe sa alal ci yoonu yàlla du tax a ñàkk waaye jéggale day taxa tedd kuy jéggale da tedd sëriñ bi daana wax naan dee leen moytoog tooñ tey moytoo fayyu ndax kuy tooñ du mucc kuy fayyu du ñoŋ wa minhu afu afu shaxsi an man zalama wa misluhu itaauhu man xarama xam ngeen ne moom sëriñ bi ba mu jógee di sanc dëkk ba mu jëkk a sanc daaru salaam la ko tudde ngir mu wundu ne jàmm rek moo ko tax a jóg jàmm rek lay jëf moom lay wax am na ñu ko daan jiima biir naa ko ñëla jiitu dañoo jëloon gànnaay di xeex ndax yëkkati lislaam waaye mu tontu le tontu leen ne leen lépp loo xam ne buntu fetal moo la ko may buntu fetal moo la koy xañ kon moom jàmm la doon dox jàmm la doon wax moom la doon suuxat moom la doon woote waaye du fayyu donte tooñ nañu ko lu baree baree bari zalamtumu alabda alladi laa yantaqim li nafsihi mujahidan lilmuntaqim li wajhi man anhu afa ankum afa baada jihaadin wa bala'in dorifa nee na tooñ ngeen jaamu yàlla bii nga xam ne du fayu mukk ndax gannaaw yàlla topp ko dara moom it du topp kenn dara kon kuy dox jàmm di ko wax moo ca jiitu kon njabootam ñoo war a jiitu ci dox jàmm ak sàkku jàmm ak wut jàmm mos naa bind bataaxel wax ne képp ku jot ci bataaxel bi na nga xam ne ki bind mbind mi jéggal na képp ku ko tooñ wa annahu la yad'u ala zalim ñaan sax du ko ko def ñaan yàlla sax du ko def aju tooñ wa annahu yastaghfiru li kulli muminin taallaq bihi képp ku aju ci moom mi ngi lay sàkkul njëgalug sunu borom waaye lam ci teg moo gën a yéeme wa annahu yuhibbu li kulli man lam yataallaqu bihi misla ma yuhibbu li man taallaqu bihi moom day ñi aju ci moom yéene moom la yéene ñi ajuwul ci moom kon de xam ngeen ne kii lamu santaane ak fa mu joxoñ mooy ñuy dox jàmm di wax jàmm daana wax ne mbindeef moo gis nanga xool ci moom jëmmi yàlla ma ko sàkk bul def ci moom safaan bul wax ci moom safaan ndax da xool ci moom yàlla mu ne waraaci fi kulli xalqin xaq man xalaqa moo tax yi nga xam ne ñenn ñi defe nañ ne day tàqali nit ñi danaan wax ne loolu wartu tàqale kenn kii fii la féete kee fee la féete wartu tàqali kenn kenn ku ne ko wormaal ko ka mu féeteel te yàlla tax ndax ñoom ñëpp duñu ay noon waaye dañuy jàngale diine sunu borom seeni wuute rek moo waral kii wax lii kee wax lee mu wax ne fal ulamaau muwaxiduuna xumaatun lilshariati almutahara wal aqtaabu muxlisuuna rabbuuna an alxaqiqati almunawara fa ixtiraamu aljamici li wajhi illahi taala mutaayin waltaxaabubu bayn alulamaai rahmatullahi alayhim xayaatu alshariati almuhammadiya wa ixtilaafuhum fi lmasaili taallumun wa taalimun laa adaawa wala taxaasud moo tax mu doon santaane na ngeen di soppante ngir jëmme yàlla bu leen xëccoo ndax soppante mooy wane ne da ngeen a gëm yàlla ku gëm yàlla da ngay sopp sa mbokk ma gëm yàlla loola nag ko ña ko def ñooy bég tey ñooy bég ëllëg te ku soppal sa mbokk li nga soppal sa bopp am nga ngërëmul sunu borom taxaababu fi llahi zil jalali bila tanazuin wala idlali inna taxaabuba huwa al imanu li ahlihi sururu man habba lil axi alladi yuhibbu li nafsihi radiya moo tax daraan wax ne bu kenn tooñ boroomam bu kenn boppam bu kenn bu kenn tooñ moroomam kun kun mutaaddiban maa arrahmani wa maa bi kulli shaani moo tax am na téeréem boo xam ne ku ca dellu da nga fekk mu cay jàngale ni nit ki di nekk ak nit ñi ni ngay tooge ndax bañ rek nga tooñ kenn nga xatal kenn foo war nelaw ak foo warta nelaw sooy dem ci barab noo fay tàbbee sooy xool lu mën a doon noo koy xoole sooy jëfandiku ci ñam noo koy jëfandikoo sooy dox nooy doxe sooy wax nooy waxe lépp da ko doon jàngale ndax bëgg nit ñi waggarante bàyyante xel kenn ku nekk def sa mbokk ni sa bopp waxoon na ne ñetti nit moo am ki la mag ak ki nga mag ak kii sa morom kii mag am na cir bu ñëpp xam na nga ko ko jox ki nga xam ne yaa ko mag cëram ñëpp xam nañ ko na koko jox ki nga xam ne sa morom la nawloo ko def ko ni sa bopp loolu soo ko defee euh, jàmm ne ñooy wa kun ma an naasi jamian dahraka kama tuhibbu an yakunu maaka su ko defee nag coow li nga xam ne day am ci ay réew te amoon na fii ci réew mi di law ba dugg ci dugg Sénégal nañu xam ne bokk na ci li koy waral ni ma ko waxe sànq mooy tooñ tooñ am na ñu ko mën a dékku man ko muñ waaye am na ñu ko munta muñ te koo gis muy tooñ yi ko waral bokk na ca dafa bàyyiwul xel man-manu sunu boroom ak sañ-sañam ak xarañam sunu borom ku bàyyi xel kàttanam ak xarañam ak xam-xamam ak sañ-sañam doo tooñ kenn أشهد أشهد أن محمدا رسول الله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله mbokk yi sunu borom du tooñ kenn waaye doomu aadama yi ñoom ñooy tooñ seen bopp ak a tooñante inna allaha laa yadlimu nnaasa shay'a walakin annaasa anfusahum yadlimuun bokk na bokk na nag ci li tax nit ñi di tooñ mooy dañoo bàyyi bàyyiwul xel sunu borom sañ-sañam ak dogalam ak kàttanam ak xarañam man nga bari ay pexe waaye sunu borom kenn mënut a fexeendoo ak moom bokk na ci li waral tooñ ñàkk jàng diine ñu jàngal diine nàmpatal la ci diine loola ku mu dal du tooñ wala su tooñee dana jéggalu waaye ku jàngul diine wala nàmpta nàmpataluñ ko ci diine yar ko yorub taalibe kooka mën naa tooñ te da koy woyofal tooy yi bokk na ci liy waral tooñ nga yaroo ci barab boo xam ne namputa namputaluñ la ci ragal yàlla gisoo fa it koo roy teg ko fi sa kanam di roy ay jëfam di roy ay waxam su boobaa danga ñeme loo xam ne euh, xel sax du ko xalaat waaye bu ñu la namputale ci diine jàngal la diine xiir la ci def lu baax ak wax lu baax xamal lan mooy ragal yàlla nga am kilifa goyroy am na loo xam ne doo ko ñeme mbaa dangay juum te soo juumee da ngay jéggalu bokk na ci li waral tooñ xëccoo xëccoo alal am na ñum jaral tooñ xëccoo daraja am na ñum jaral tooñ xëccoo ndomboy tànk am na ñum jaral tooñ kon ci gàttal xëccoo àdduna am na ñum jaral tooñ te xamuñu ne euh, adduna jërul alaxira ndax luy jeex kenn du ko euh, kenn du ko fab loo xam ne du jeex doo ko jaay di ko jënde loo xam ne day jeex ak leer doo ko jaay di ko jënde lëndëm la tashtari dunya bi uxra yaa fata man baa nuuran bidduja fa sa yandamu kon bokk na tam ci li waral tooñ mooy bàyyiwuñ xel ne nit ki ñu tooñ su dëkkee yàlla ay loxoom ñaan ko sunu borom du ko gàntu ku ñu tooñ fu mu ñaanee sunu borom day nangu ak ñaanam kon moytu néewal doole nit moytu tooñ nit ab jullit bu ne war na caa góorgóorlu ndax soo ko ëppee doole ba tooñ ko su ñaanee yàlla sunu borom sunu borom da koy fajal ca saasa te asgor su demee ba sës mën naa def loo xam ne euh, bañ rek moo tax mu def ko te asgor day bañ asgor nag day bañ la tasqini ma alxayaati bi dillatin bal fasqini bil izzi kaasal xandali loolu nag moo tax yëngu yi bari ci ginnaaw yëngu yi nag bi mu baree xam ngeen ni li ëpp ci ñi doon yëngu ay ndaw lañu ndax wax nañu ne réew mi téeméer yoo wàññi juróom-ñaar fukk yi ay ndaw lañu loolu nag war nañoo joxoñ lan lay joxoñ mooy ndaw ñi luñ leen yar nañu ko xeeb luñ leen jàngal nañu ko xeeb ku toll ci ak ndaw dañ ko war a yar dañ ko war a jàngal la muy jàngal la ca jiitu mooy diineem dañu ko jàngal diineem waaye nañu ko defal formation nañu ko jàngal luy tax mu xam nu muy saytoo addunaam waaye koo xam ne xamul lu muy saytoo addunaam xamul fu muy jaar ba tekki xamul dara ci diineem kooko ngelaw lu ñëw mën na ko yóbbaale te téeméer boo wàññi wax nañu ne juróom-ñaar fukk ya ay ndaw lañu moo tax naal bu rëy bii sëriñ bi naal xam ngeen ne bu sottee ba mel na mu bëgg ba am ay bànqaas fu ne ci dëkk bi ak fu ne ci biir réew mi ku bëgg sa sa njaboot yaru yarub diine dana jàppandi ku bëgg sa njaboot ñu jàngal ko addunaam ba mën a saytu addunaam dana jàppandi tax na ba kon liggéey la boo xam ne sémb la boo xam ne ñëpp ci war a jàpp la ca tege moo ndaw ñi bi ñu génnee ci mbedd yi di wane seen mer wane na dañoo sës wane ne kenn du wañ seen loxo asgor kenn du kenn du wañ loxoom nañu ko defee nag moo mat waxtaane ndax nit wa sañ naa wane naqaram sañ naa wax ñëpp dégg ko waaye nag yàq moo jaaduwul soo yàqee alali jàmbur da ko amel àq bu dee sa mbokkum jullit amel nga ko àq su ngeen bokkul diine sax amel nga ko àq boo yàqee lu ñëpp bokk ameel nga ñëpp àq kon nag di wane saw naqar di wane di wane da sës manees na ko waaye doo yàqal kenn kon kenn bañul nit ki mer amu naqar sës wane ko waaye li ñu bañ mooy yàq yàq gi nag fu ñu ko takk weesu na weesu na ko waaye sunu borom mi nga xam ne lu mu sotti ndox mu sedd mu fay sunu borom fay na ko waaye nag ba koy fay ci ay loxo la ko jaarale war nañ ca xame ne kon am kilifa mënta ñàkk foo dem ci biir Afrique wala biir àdduna am na réew yoo xam ne mi ngi tàkk am na yoo xam ne ba mu dalee tàkk ak léegi at yu baree baree bari la Somalie masalan ba mu dalee tàkk ak léegi at yu bari la ak nag yeneen dëkk ak yeneen dëkk lu tax nag muy tàkk te fay mooy amuñu kilifa goo xam ne su waaw ñi ëpp ne waaw bu nee déet ñi ëpp ne déet noonu nag sunu boroom dana koo baaxe fii ci Sénégal am nañu ay kilifa yoo xam ne nun ñii féete fii am kilifa goo xam ne su waaw ñi ëpp ne waaw ñëpp ne waaw sa laay wax su su ne déet ñëpp ne déet loola moo waral bi mu jógee tàbbal ci kàddoom bi mu jógee sàkk ay ndaw yu mat ndaw ñu dox ca wax ca lépp dafa jeex kon nag lu nu téye suñuy kilifa nañu ko xeeb lu ñu leen wagar nañu ko xeeb lu ñu leen ñaanal nañ ko xeeb ndax jàmm ji ñu nekk tey yàlla yàlla ci ñoom la ko jaarale bu dul woon ak ñoom kon tey ba tey dëkk bi mi ngi tàng waaye jàmm daal lu ko waaye jënde jar na ko xam ngeen ne sulxul xudaybiya ba ku tedd ka ànd ak saxaaba yi dem ne day omra ji te yéefar ya ne ko doo ko def ba ñu waxtaanee bay signé pacte bañ koy signé dafa wax ne nañu bind bismillahi rahmaani rahim yéefar yi ne déedéet ñun loolu xamuñu ko loolu duñ ko bind saxaaba yi ne moom la ñuy bind yéefar yi ne duñ ko bind waaye ku tedd ka dafa ànd ak yéefar yi ne nañ bind lañ xam ñoom mooy bismika allahumma ba ñu ko bindee ñu ne hada ma qaada bihi muhammad rasulullah ñu ne déedéet rasulullah fan su ñu gëmoon yàlla la yónni du ñu jàmmaarloo ak yow mu ne kon na ngeen bind muhammad ibnu abdillah gis nga bëgg jàmm gi moo tax bas mala gi bañ ñu ko bañee mu ne nañ bind la ñu xam muhammad rasulullah bañ ko bañee mu ne nañ bind muhammad ibnu abdullah kon ndeke jàmm loo ko jënde jar na ko moo tax xetu omar ibnul xataab ci pas-pas ba dana ko xanaa yàlla yónniwu la mu ne ko aha mu ne ko mm, alas naa alal xaq xanaa ñun nekkuñu ci dëgg wa aduwana alal baatil noon yi ne ci neen mu ne ko aha kay qaala fa lima nuta daniya fii diininaa kon nag lu tax ñuy nangu loo xam ne eh, dañuy wàcce ba ñu suufee mag ñi nga xam ne nag ñoo fi nekkoon ci jamonoy sëñ bu mag bi sëñ bi da leen daan waar di leen bëpp di leen loo waaye ba bañ jotee nag dañoo bañ ba bañ jotee kat dañoo bañ sëriñ Mamar Maane ko tontu boobaa ne ko da ngay dañuy dem Tuubaa folli la tey tekki sa ndomboog tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk kon nag ba bañ jotee mag ña dañoo bañoon waaye nag ñoom daawuñu bañ nii ñuy bañi nun muy di toj ak di yàq ak di tooñ kon nañu ñaan yàlla jàmm ci sax yàlla jàmm ci sax dàkk yàlla nañu yàlla defal jàmm ci àdduna defal ñu ko ci bàmmeel defal ñu ko ëllëg yàlla nañu yàlla sàmmal sunu kilifa yi nga xam ne su safara tàkkee ñoo koy fay ndax seenu yàgg fi mooy sunu jàmm seen ndam mooy sunu ndam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الحمد لله الذي عم العوالم جودا وإحسانا وجعل لفيضان رحمته أوقاتا أزمانا نسأله أن يوصل منا الصلاة والسلام ويوالي المبرة والإكرام على سيدنا محمد الذي فتح الله لأمته من سعادتهم ما أراد وشمل بنعمته الشريعة بنعمته الشريفة الحاضر منه والباد وعلى آله الأعيان وصحابته الأعلام صلاة كاملة تتصل ما اتصلت الليالي والأيام أما بعد فيا أيها الناس إن شهركم هذا رجب الفرض الحرام قد ذهب ثلثاه ولم نحسن فيه عبادة الله فأكثروا فيما بقي منه من نوافل الخيرات والأعمال الصالحات والبر والطاعات وإن فيه يوما عظمه الله على سائر أيامه كلها فيستحب تعظيمه شكرا لله والتعرض فيه لنفحات رحمة الله قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فمن صامه ابتغاء وجه الله عوض الله بصيامه أجرا كثيرا فاجتهدوا يا عباد الله واعملوا عمل من يعلم أنه راجع إليه يجازى على الصغير والكبير سبحانه أنه لا إله إلا هو العلي الكبير الحمد لله الذي وسعنا برحمته الشاملة وبلغنا بمنه الأزمنة المباركة الفاضلة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده الأمي الأمين ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا أيها الناس بالأمس كنا في فسحة من شهر الله رجب واليوم قد كاد يغيب عنا هلاله ويحتجب وأخذ في الانصراف وقد آن رحيله وبرز الانتقال والفراق دليله وقد ظفر فيه بالبغية الصابرون ونال فيه المحبة والحب ونال فيه المحب خيبة والحرمان المقصرون فودعوه وداع الحبيب وزودوه من الخير بأوفر حظٍ ونصيب وتأهبوا للقاء شعبان شهر التوبة من الإسيان والطهارة من الأدران وتكفير, وتكفير للذنوب وتنوير للقلوب والتسهيل للحساب والتأمين من العقاب والنجاة من النار والوس والوسيلة إلى العزيز الغفار وفقنا الله لأعمال المقربين وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين يغفر الله لنا ولكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أي على الصلاة أي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله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 الله أكبر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 تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام allahu akbar sami allah rabbana laka alhamd allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum assalaamu aleykum من أساء الظنا بي أخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل صلاة وسلما على الذي أبدي لا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسعة لي توسعة يخبطني فيها سواي لي أنا ارتعتني وصل يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلا المعلوم sayyidina muhammadin wal aali wa sahbihi fil haali wal maali waliyab salaamatan wa aafiya waj'al hayaatiya hayaatan saafiya wa salli yaa latiifu bis salaami على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتف بي اليوم بما لم يكني ولا يكون أبدا لممكني وسل يا ميسر السحاب وسلم على مسيل العاب سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب